salaamaaleykum mbokku internet euh, yi ñu bàyyi xel ci jamono ju nekk saa su ne suñu yëkkatee itam suñu kàddu seen xel day dem seen jotaay bu am solo bi leen di seen jotaay kàggu euh, mag ñi mbokk seen jotaay kàggu mag ñi nag fa seen fii dalal tey euh, Thierno Sow mbokk yi Thierno Sow tabarkàlla itam bawoo ca dëkk bu sell bële nga xam ne ci diwaanu Jolof balaa ñuy sori dañ koy daal di jox kàddu gi balaa muy sori Thierno Sow salaamaaleykum. asalaamaaleykum rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi leen sant di leen gërëm yéen ñi fi teew. kenn ku ne turam ak santam waaw macha allah ak ñi fi seetantel yi yëpp maa ngi leen di nuyu kenn ku ne tur kenn ku turam ak santam macha allah wallaahi jërëjëf Thierno Sow tabarkàlla mbokk yi yaakaar naa ne ni ma ko waxee ni tey bu ñu nee euh, Sow rek xam nañ dañ ko xam ci euh, pulaar ci pullo euh, ñu xam ne rek kàddu gi tam waaye ñu fas yéene rek fas yéene am ak moom jotaay bu am solo tey mu mel ni damay ñëw rek ci wàllu tey li nga xam ne dama fay njëkke ak yow muy wàllu seet wàllu seet yéen ñu bëree bëri ñu gis leen ci wàllu tey pël xam nañ ko ci seet waaye gis nañu seet boo xam ne xëy na ki amaana ki tomb ngeen koy def mu mel ni ke layu euh, di ki tomb euh, xeetu seet boobu foo leen ko doon ne su sunu maam yi lañ koy doon ne waaw dañu seet dañu seet comme suuf yi pour yi ñu ngi koy wax gisaane dañu seet si dañ koy te dañ koy jàng kadi itam te dañ koy miin kadi te te maa ngi leen di kii mun naak ñun ñëpp mun nañu suñ maa ñun lañ koy doon. kon daal da ngeen a doonee loolu seen i maam. wallaahi dañ koy doon na maam macha allah. waaw ma dégg ñu ne si xeet boobu sax même bu la fekkee ne seeni i jur maanaam seen nag yu doon sàmmi dafa xaw a réer ak yooyu est-ce que loolu seet boobu mën na mën naa feeñal ku réer le nag ñun dañ buñ bu ñuy sàmm dañuy doon buñ suñ nax réere di ñu seet buñ kam nax yi nii la ñu jim walla nii dañu kam rek di dañu seet rek buñ xam ndax li nii la ñu jim wala nii. kon daal ci seet boobu danga xam seen nag yi ban boor daal la féete ci ci bu fekkee ni réer na waaw tey ki nga xamante ni day dafa yor xëy na ay mbiram mu réer moo xam euh, ay ay bagaasam tey xëy na mu réer wala mu am loo xam ne daf ko réerle loolu ci seet bi fi mu nekk ak fu mu mënta kenn yéen mën ngeen ko gis. waaw waaw incha allah dañu seet te di bu soobee yàlla di buñ seete buñ pare diñ diñ koy gis loolu moom yàlla moo wax def du ñun. dañu dañ koy gis wallaahi. alhamdulilah léegi ki nga xam ni dafa bëgg soxna wala soxna si bëgg borom kër ndax ki bu fekkee ni baax na ci moom tamit loolu seet bi tam da koy génne moom. waaw dañ koy génne boo boo joxee tur ji ak sant bi ak tur jigéen kii rek dañ koy génne waaw dañ koy génne wallaahi macha allah. waa léegi itam euh, du la bàyyi ki seet ndax xam naa ni tey yow bu ma jàkkaarloo yi yaakaar naa seet rek yaakaar naa mën nañ ci ay bunt yu baree bare bare Euh, am na ñoo xam ne dañuy jënd tey bërëb maanaam ñu bënd jënd foo xam ne dañu faa bëgg tabax euh, léeg-léeg da ngay gis ñoo xam ni dañuy ñëw rek jënd suuf tabax te war nañu xool foofu ñuy jënd est-ce que baax na walla baaxul parce que ñu ci bari dañ koy jënd ba pare euh, di am ay problème ci tabax beeg yu demee noonu wàll boobu tamit ci seet tamit day dox ba léegi ci loolu. wallaahi loolu am loolu moom dañ koy seet te te buñ seete buñ pare dañ koy gis buñ koy gisee ñu leen wax noonu la affaire bi demee. waaw loolu kam yàlla moo ko def si ñun wallahi macha allah. Eh, jërëjëf na Sow mbokk yi dégg ngeen ci wàllu seet mu nekk loo xam ne am na solo waaye tamit ma yàkkamti laaj leen dama ne du ma toog ak yéen tey te du ma la laaj tey bu ñu nee Sow rek dama koy laaj ci wàllu jet jet nekk na loo xamante ni ay baat la yu doyo doyo war eh, jet moom it mu mel ni tamit eh, su ma saa su ne te xam naa ne seen maam ngeen ko doon ne waaye tam est-ce que loolu ab ndono la maanaam da koy donne seen maam comme ni ma la ko waxee itam xam na ni moom ngeen ko donnee waaye est ce que jat bi ñu doon jatee ñoom ba léegi mooy dox ci jamono est ce que jat ngi am efficace. wallahi macha allah mu ngi am ba léegi lu nekkoon yëpp ba léegi mu ngi am ba léegi macha allah mu ngi am wallahi di ñu jat te buñ ñu jatee incha allahu rabbi da koy gis loolu kam yàlla moo ko def dañ koy donn te dañ koy jàng kay di itam waaw. yéen fan fan ngeen xam ne boo leen fa rek jat moom il faut baatu jat bi day ñëw maanaam ci ban ay ay problème la euh, wala ñaari diggante yi nar a yàqu wala ki nga xamante ni euh, maanaam dafa nekk ci jafe-jafe ci ay biir jafe-jafe foofu ngeen jate wala tamit jat dafa am loo xam ne spécial pour rek ngeen war ngeen war a jatee. waaw di ñu jate kam nga jat moom dafa am ay façon façon bokku ñun ñëpp bokku nekkuñ façon benn façon de day bëri ay façon looloo tax. kenn ku ne ak li nga ak li nga nga wax ko ñu defal la ñu jaat ko ba incha allah boo buñ ko jaatee te diñ koy jàpp. kon yéen daal lan moo leen ne war ni gat bi jàpp na xam nga léeg nga dem ba mu yàgg néew ne dama am problème sàngam wala dama am problème euh, kayit bu ma toppatoo dama ci am problème comme wàllu kayit man nga ne man damay wuti kayit est-ce que loolu tamit gat da ciy dox. waaw macha allah da jat dañ koy dox te kadi wàllu kadi lii dañ koy dox ak yeneen di dañ koy def ay li nga xam ne ñooy nuñ koy def xam nga man moom sama olof bi leerul waaw ñu koy def su yi nga xam ne ñu koy wax éeri foofu lañ koy dindi ak leneen ak leneen ñu def ko ci buñ ko defee bu soobee yàlla dangay gis la nga doon bokk mhm. wallaahi macha allah. Euh, waaye bu jat bu xas ba jàpp est ce que neex naa dindi keneen mën naa jóge fa la dindi ko jat boo xam da jat ba xam ne lii jàpp na jàpp nga li nga bëgg a jat ah balaa nga dindi daa nga sonn di bu soobee yàlla incha allah macha allah waaw mbokk yi kooku mooy Thierno Sow tabarkàlla ni ma ko waxee dégg ngeen ko xëy na ni ma ko waxee kàllaama wolof bi leerul waaye tamit yaakaar naa ni ñuy euh, ñu am xelu tam xam fi muy waxee bu baax a baax dégg ngeen ci kaddu euh, sedd wax na ci waaye tam dégg ngeen ci wàllu jat nee na jat moom bu xasee ba nga xam ni ak sa soxla fu mu mënta toll euh, suñ ci jatee rek yaakaar naa ni mbokk yi nee na bu xasee ba jàpp dind ko moom du luy yomb ñu ñëw ci wàllu ubbeeku am jafe-jafe euh, ay mbiram doxul mu bëgg ubbeeku euh, te dégg naa tam yéen ci wàllu ubbeeku da ngeen ciy dox euh, ci wàllu ubbeeku lan ngeen di ubbee doomu aadama yéen. ñun moom dañuy def ay sunguf ay sunguf la ñuy def wala ak ay benn daal am benn am am ñoo xam ne suñu suñu kër pël yi nag ay sunguf la ñuy def. yéen daal ay sunguf ci wàllu sunguf ngeen ubbee. ay sunguf la ñuy def daal. wallaahi macha allah. mais nit ki kon yaramam lu fekkee ni am na lu ci nekk tam ci wàllu sunguf boobu mën na koo dindi. déedéet loolu moom de wàllu sunguf boobu dañ koy dindi wante ñu bari dañ koy naan dañ koy di ko am ñu sang am ko koy naan kay itam. Ah, ñenn yi dañ koy mën euh, sangoo ñii tamit dañuy naan. mooy tax mbir mi jàpp. d'accord euh, mu loo xamante ubbi doomu aadama am na kaaraange tam am na solo. kaaraange maanaam aar doomu aadama xam nga yow tey mën ngaa dindi nit ki problème yi nekk ci yaram bi waaye nag ubbi ubbi euh, nu ñu ko waxee kaaraange bi nga xam ne bu yàq-yàq ñëwee ci kawam du mën a dal ci kawam kooku est-ce que da ngeen dox. waaw dañ koy dox dañ koy dox ñun moom dañ koy dox dañ koy dox wallaahi macha allah dañ koy dox te te dañ koy defar itam dañ ko doon kay di wallaahi sunu maam yi lañ koy jëlee wallaahi macha allah. mais dégg naa jolof moom ku fa xas ba dugg moom tabaarkalla ay bagage a nga fa jolof. wallaay foofu am na bagage macha allah wallaay te ya bagage bi yàggaan foofu kadi itam wallahi macha allah. mais ku ñu liggéey ba mën xamatul fu mu jëm daanaka bu amoon kër sax mënul xam ne kër gi léegi moo ko moom maanaam ay yàq-yàq yi nekk ci yaramam kooku est-ce que mën na dañaat da ngeen koy wàññi rek wala mën na dañ ci nit ki ba jeex. dañ koy day dañ koy. te nga koy toj wallaahi macha allah mbokk yéen a ko dégg noonu euh, muy wàllu tam dégg ngeen ko ci wàllu kaaraange ginnaaw ubbeeku dégg ngeen ni mu ko waxee nee na ñoom daanaka lu ci bare bare ci wàllu sunguf la waaye tam yaakaar naa ne ci jolof euh, nee na la fa nekkoon ba léegi mu ngi fa dara jóge wu fa kon nag di leen fàttali rek seen jotaay kàggu mag ñi di wéy euh, waaye tam di leen fàttali rek ni yéen ñi bëgg a jokkoo moom numéro téléphone baa ngi noonu ci baaru écran bi 77 550 75 23 77 cent 555 75 23 loolu mooy numéro bi nga xam ni euh, yéen ñi ko yittewoo rek boo leen ko woowee daa mën a euh, jokkoo ak moom euh, fi ma jëm mooy léeg-léeg dañuy gis góor boo xam ni ki biir néegu sëy mënul boppam maanaam mu néew néew kàttan kattan gi wàññeeku am na koo xam danaan la dama doon mën ba mu yàgg léegi mënatuma dara dara dara dara loolu dangeen koy traité. waaw diñ koy traité diñ koy def te buñ ko leen defalee diñ ko am ñoo xam diñ koy def ci ay yàpp. am yoo xam ne koy def si ay soow nga naan ka waaw. mais loolu calmer rek la maanaam loolu danga koy calmer rek euh, wala loolu mën na fajuwaat ba wér am na loo xam ne tam bu la xasee ba daal est-ce que tam euh, dellusiwaat ci jamono ba ni nga meloon yëg sa bopp dëgg-dëgg est-ce que loolu yomb na. yomba na macha allah xam moom nit moom day day def waaye la ñun moom dañ koy def ba mu dellu si loolu kam ñun moom dañ ko doon dañ ko mun wallahi macha allah. wala mais ma dégg léeg-léeg ci ci tey ci ci côté pël dégg naa ne ñoom léeg dañu joxe ay fas fas am na fas ci côté boobu dafay am wala fas tamit ci beneen côté la. waaw dafa am fas boobu dafa am wallahi fas dafa am. mais boobu est-ce que tam bu réeree doo doo delluwaat ni nga meloon. déet ah, déedéet fas moom ba li ngay wax déedéet fas fas ni doo fas da nga ah, koy naan. waaw. danga koy naan nga def ko si yàpp walla soow waaye doo si def ah, fas. waaw déedéet. yéen yéen xam nga uh, fas maanaam nga takk ko ci ndigg am na ñoo xam ne dañuy joxe ay fas xëy na ñu ne léeg-léeg métti méttitu ndigg wala tam léeg ñu ne la boo ko fasee wàllu nopp boole. waaw loolu moom dañ koy def. dañ koy def mooy wàllu nopp. ngir ñu bëgg waaw bëgg ànd ànd ànd bi neex diggante bi neex. wallaahi loolu moom dañ koy def. wallaahi macha allah dañ koy def. wallaahi alhamdulilah fi may daanelee nag yaakaar naa waxtu bi dab nañu tey ki nga xam ne tey ñoo ngi toog moo xam mu nekk ci réew mi fii am na xam ne problème kayit comme ni ma ko waxee sànq kayit nekk na loo xam ni euh, lu leen yitteel la lu ñu bëgg la mais problème bi mooy dañ ciy am jafe-jafe wàllu kayit. bu ñu toppatoo rek seen i mbir dafay dëgër trop trop trop ci biir réew mi am na ñoo xam bu ñu wuti kayit dañuy am problème bitim réew dañuy am problème mais loolu tam ku ci nekk tam mu ngi naan mën naa ko mën naa ko mais tey su ma la doon laaj loolu est-ce que loolu yomb na. waaw yomba na yombaan ak kooku kam dañ ko xam ñun xam suñ kër pour yi moom di diñu xam wallahi dañ ko donn si maam it te kadi dañ koy jàng itam xam nga loo loo jàng loo ko danga ko kam te yaa ngi koy toppatoo wallahi Cerno euh, Sow waxtu bi dab nañu euh, ñuy kontaan ci Euh, tamit di la santaat bu baax xam naa ni ni koy ko waxee ñi déglu xam naa ni wolof bi xaw na leen a jaaxal waaye li ñuy wax yaakaar naa dégg nañ ko bu baax euh, lan ngay tàggatoo ñi nga xam ñoo lay seetaan yaa maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di sant ñu kenn ku ne turam ak santam ak ñu fi teew ak ñu fi teewu yëpp maa ngi ñaanal Sénégal jàmm jàmm salaam wallahi ak ñu seetaan télé bi yëpp maa ngi leen di sant maa ngi leen di itam jërëjëf mbokk yi kooku mooy Thierno euh, Sow tabarkàlla doomu jolof gi lee ngeen ko tam nu mu ko waxee rek euh, saa su ne itam ni koy waxee euh, numéro téléphone bi rek di ko santaat rek di ñaan allahu buur bi subhanahu wa doole guddal fanam lool doole ko defal taw feex ak tay si rek na jaaxa defal ko saxab daareen ci barke yonent bi euh, mu yàgg lool di jëflanteeg askan wi waaye tam saa borom bi di ko ci defal ndam si seen jotaay kàggu mag ñi tey nekkoon suñu gan di leen fàttali numéro téléphone baa ngi noonu affiché ci baaru écran bi 77 555 bu jàmm ji info point net bi ak montage bi